asalaamaaleykum ñu leen lu gën a fas ci bopp xibaar yi gannaaw bu juróom-ñeenti waxtu jotee fële ci Dakar gu sooy recruté njaay lu gën a fas ci bopp xibaar nag ñu tàmbale ko Al Jazeera daal démb wane nañ daal li nga xamante ni moom mooy ay oto yoo xam ne dañ ko doon jox waaye Union européenne ñoo ko doon jox Sénégal pour ñuy aar frontière yi di aar ñi nga xam ne ñooy terroriste yi waaye daal palanteer yooyu ñoo waroon a aar dañ ko fa mujj bàyyi ñëw ci biir dëkk ba di jël ab leader di ko topp ak seen oto di ko sànni ay moo machine di tiire ay bal ñii daal dafa mel ni aar moo leen taxoon a jóg waaye dañoo mujj ñoom di eh, bëgg a sàkkal pexe ab leader daal loolu moo jaaxal waa Al Jazeera loolu daal moom la ñu suñ bi xamal lan moo tax ñooñu nga xam ne kenn waruñoo topp ab leader ñuy topp ay leader dugg ci biir dëkk bi di jaxase dëkk bi loolu daal jaaxal na askan ba kon daal tubaab bi léegi ñu ngi ci lañ newoon démb di tappale di suy ay saal buloo ànd ci ak ndafa waaye daal kon xamal nañu ne ndafa lii daal bu jàppoon dat wala tey ji mu fekkoon ñu génn si élection 2024 konoon doo fi gis dara loo xew ci dëkk bi ba ay ñaxtu ba ay euh, coow du juddu kon lépp problème mu dat la am koo xam ne dangaa war a euh, organiser élection nga naan damay bàyyi te organi doo organiser élection te boo bàyyee amuñ ku la mën a remplacé ndax amul benn taxi bu wax ne président bu mandaam jeexee dañ Euh, utal <laughs> keneen ku ko remplacer élection rek moo mën a am ñu mën koo remplacer voilà bu fekkoon koo xam dafa démissionné mais nee nañ démissionné dafa jeexal mu war a dem kon loolu problème la boo xam ne réew mi mu ngi ci guuta dugg si gudd gu bët sita gudd samedi nag mm, opposition bi oote nañ pour taxaw ak mouvement yi ñun ñëpp ne samedi daal na askanu yëpp génn ñoon Macky Sall suñu dëkk lañ soxla suñu élection lañ soxla loolu daal lañu ñu xamal journaliste bu ñuy wax may mën gannaaw ba mu dalalee farba ngom xam ne moom ku ne da koy tuumaal ku gis ne askan waa ngi koy déglu rek mu ne maa moom ànd nañ moom daal loolu la fi nekkee moom farma daal daanaka waxam yëpp mu ngi ko juble ci waa euh, ñi nga xam ne opposant lañ moom daal lay sànni xeer rek àndoon nañ moom ku gis rek ne àndoon nañ def lii àndoon na toog moom daal loolu mooy problème moom farba voilà gannaaw mooy mën a nag ba émission ba jeexee daal dañ koo jëm ci loxo loxo ba daal lañ wane fay génn deret waaye faj nañ ko ba taf ko daraja jeex na bu yàgg waaye nag daraja jeexu sa réseau ba moom fay gars yi di gën di tiit nit ñi naan lan moo war a li waaye daal du dara luñ programme la rek jam wane jam jam bi rek daraja génn ñu taqal ko foofu yëpp waaye taf nañ ko bu yàgg moom may mun a moo gën a seddale ci ñi gaañu Sénégal ñëpp moo ci gën a seddale ñii bët lañ ñàkk ñii loxo lañ ñàkk ñii tànk lañ ñàkk ñii daal ñii dee waaw moom may mun a daal moom lañ gën a médiatiser nag ndax président génn na te sept cent personnes dee nañ ci gaal mosul wax mandat bi nga xam ne dana moom élection du fi am am quatre personnes yi dee waaye génn am ñu ñu rey ci bal quatre-vingts personnes mosul génn jàll kenn waaye tey daal génn na bay wax ak journaliste yi <laughs> ma ngay defal may mun a ñoo xam ne daal lii ab système la mbaa du yéene ko programme da ngeen ni suyee sal bulo loolu daal la ñu xamal ki nga xam ne mooy euh, Diop Taïf daal évité woon nañ ko gannaaw loolu daal gone yi nee nañ ko na tee voilà ndax gars yi dañ lay dugal fu ne nii daal na wàññi caméra ak mm, wax ji te jublu ci programme mu liggéey bi ci suuf ndax gars yi dañ lay fexe ba dugal la nga glissé ñu daaneel la loolu daal lañu ñu xamal waaye gone yi nee nañu Mariama Sagna moom lañ fi njëkk a faat ba tey dara leeru voilà magi Pastef rey nañ ko fi ba léegi amut dara lu leer voilà kon lii daal yàgg na fi. ana ñi nga xamante ni ñooy Fulbert Sambou ak di Badji kon fii daal amu ku ma am ndey ku ma amul ndey dafa mel ni daal ñaari senegal am lii nag dafa war a dakk dafa war a day jërë ngeen jëf lii ma gënoon a fas si xibaar ki nga xamante ni nag mooy Babs moom daal wàllu vidéo daal loo ko see laaj rek mu indi la ko. mun daal vidéo yi nga xam ne Macky Sall ak i nitam dañ doon toroxal askan wi di leen tiire ay barreel di toj seen bopp di dagg seen i cër dagg seen loxo yàq seen i bët moom daal Babs moom lay wàcc sa guréy ba moom Babs Sivantis moom daal suñu journal bi di mu ngi bi moom téléphone am bi loo ko laaj ci vidéo yi mbon Macky Sall rek moom moo indil la ko moom Babs mu ngi sa liggéey ba kon daal na gars yi gën a concentré ca loola te bañ ci dugal loo xam ne waa kër Macky Sall ñoo ko monté seen i deret yoo xam ne ci loxo la loolu nee na du farata farata ji mooy na jàpp daal bi farata ji mooy élection day am balaa la 2 avril loolu daal moom liñ focus ak ñaxtu bi war a am suba na askan wi yëpp génn ñoo wane ne ko lii yaa ko fi xewal voilà ba nga fi toogee ba léegi rey ak deret daf ñoo soof ak dee ci ndox lii daal mooy say gouvernement ki nga xam ne mooy Moussa Baykat nag police yi daal ñooy jàpp ñi nga xamante ne ay gone lañ di laar seen téléphone yi di ko ubbi bu ngeen mënee bañ a moytu nag ñu ubbi seen téléphone yi moo gën waaye daal nee nañ téléphone bu ñu ubbi daal dañ fay gis audio yoo xam ne Moussa Baykat moo koy partagé a yi nee nañ policiers yi ñu ngi leen di laaj kan mooy <laughs> Moussa Baykat daal moom fu ne dugg loolu daal jaaxal na leen téléphone bu ubbi dañ fa gis audio Moussa Baykat mu wax mbaa bu mu partagé nee daal <laughs> fu ne nii moom la ñuy ah loolu de garaaw mu ne ko loolu de garaaw na moom Moussa Baykat dafa man a partagé Moussa Baykat wax ak partagé de see nekk loolu bu fekkee ne téléphone yu jàpp ubbi ko dañ fa gis moom ndax de bu yoboo nag ñoom ñu bandi ubbi téléphone yi ndax loolu du seen rôle loolu si àdduna bi amu fi téléphone lu personnel la kenn waru koo ubbi waa daan la ubbil code bi loolu boo xamee si luwaa tax kenn waru la koo def téléphone dañ koy jàpp ne la ma nga ne ñu teg ko denc waaye amul lu ñu dugg di xool photo Sonko mbaa ñu xool kan moo partagé eh, kan mooy kii noonu <laughs> loolu ay caaxaan la kon daal li ma ko doon fa si xibaar yi jërë